voilà jërë ngeen jëf euh, mbokki internet wasaare làmb ñu ngi leen di nuyu di leen euh, ziar bu baax a baax euh, tey nag dañoo ñëw ci Grand yoof bu ñu ñëwee Grand yoof nag bokk na ci li ñu indi mooy champion bi ngeen jàkkaarloo muy Saliou Mané ñu fas yéene waxtaan ak moom ci carrière beeg parcours beeg jaar-jaar yi mais aussi ak écurie bi nga xam ne nii mu nga fa muy écurie Grand Yoff Mboro mbër ñu ngi lay nuyu. maa lay ziar bu baax ba Basirou Faye. ci loo ne. sant Serigne comme d'habitude yàlla na sant yàgg mais allahuma amin Zal daa mel ni man gëj naa laa gis de wala lamb moo la gëj a gis man mi sax dama daan mu lool <laughs> tey ba may woo moo fekk may ndékk dama koo dagg <laughs> namel bee bëri doole mais lamb nag namm nga ko waaw trop namm naa ko trop trop trop trop parce que kan nga gëj a génn daaw laa mujjee ba saison bi passé laa mujjee bëre mhm. grand combat arène nationale man ak saa njàmbur yaa ak saa njàmbur mu demee nan waaw ma def comme d'habitude xam nga sama jikko <laughs> jàpp daan ñibbi benn combat ci saison bi du yoon waaw parce que zaal sax tàmmaluñu woon loolu. non daawul sax demee noonu mais nag jamono day déroulé noonu des fois quoi. Hmm. léeg-léeg da ngay làmb mu nooy nepp léeg-léeg nga làmb mu dëgër. yooyu yëpp nag ay baaxantelu coono la te yàlla moo ñu bind si coono. donc hmm. coono mënul ñàkk sax parce que bëgg dara sottiwul sax coono la. dëgg la ndax du neex sa xol du dëgg. Hmm. donc xaaruñu ko woon. préparé ñu kon sax parce que ñu ñoo tijji saison bi. ndax boo tijjee saison bi ak grand combat. Euh, def stade def ko nee ma ko def. nga xam ne ñaaw na lool sëf naa ko bu mënoon wax ne ma wàcc ma <laughs> dafa diis. yàlla dogal ma daan. Mhm. ak la manière. Mhm. suñ borom dogal bon ñu génn si loolu mu xaw a yéexaat trop nag ba saison bi ni muy tëjee amaatuñu beneen combat nekk loolu luñ namm dara nag. te yow gàtt gàtt saison da nga doon def deux trois. dama doo def waaw parce que yow xam man mbër man ma du ma mbër national comme man maag bàjjen bu kees ñoo yem man man bàjjen national waaye ma tamit mbër national laa. <laughs> la mbër international laa du moins. Uh-huh. donc mu ngi noonu léegi nag euh, dama daan bëree Dakar même temps dama daan bëree. njaareem uh-huh. waaw dama daan bëre côté yëpp donc moo tax man dama daan bëri ay deux combats trois combats ci benn saison. Mm. mais ñaari ñaari ñaari carrières yi aussi bokkul carrière u Dakar bi ak carrière u bi bokkul parce que tey bu ñu la doon lim Diourbel dañ lay boole ci ténor yi euh, ci ñi nga xam ne nii cercle via yi Diourbel dañ la ciy boole parcours bi nga fa def ba agsi foofu est-ce que mën nga ñu cee dellu si waatal. waaw euh, njaareem moom fi mu toll nii. Mm. li gars yi sax di laam-laamee maay roi des arènes ak nekkuma ko gars yi nga koy woo ci laam-laamee. mais daanaka mën naa ne. am na ah, ah, ñooy ñoom bëni sa nga fa. demal ba pare waaw d' loolu xam naa dañ fay dellusiwaat. <laughs> waaw ndax bu teelee tàng du neex de. <laughs> waaw kay comprendre nga. Uh-huh. mais mën naa ne mën naa ne bon bokk naa mën naa ne sax maay roi des arènes mën naa ko wax si benn benn côté sax parce que tey ñi fa mën. ñi fa mën euh, yàlla dogal na ni tey man maay seen man maay seen xalifa général. waaw mën. ñan ñoo fa mën. boo xoolee tey ay ñoom euh, giri bu Mbàkke ñoo fa nekk di ko yëngal en ce moment. ay ñoom bonis bu kadam. Mhm. ay ñoom booy ñaa waaw ñoom Malick Niang. Mhm. ñoom ñoo fa nekk di ko yëngal. mais am na ñeneen mag ñaa nga fa. ak euh, ñu nga fa. ñoom non Cheikh Niang Cheikh Niang sama sama sama sama sama grand frère kooku làmb boolew ñu. kooku sama ah. moom moo ma indi si làmb ji. waaw ah, ñoom Boubou Diaski ñu nga fa. waaw Boubou Diaski daan naa ki ko daan. Ah. waaw kon kay. kar ku daan Boubou Diaski ko daan. ah kan Girib Mbacke moo daan Boubou Diaski. waaw Girib Mbacke maa ko daan. Mhm. léegi nag boo xoolee kon ñi fa mën. Uh-huh. ñoom ñëpp fi mu toll nii maa leen daan ci benn ngemb. kon roi des arènes bi kay njaaram yaakaar laajteetuñ ko sax. waaw ah. ah, ah, laajte da di nag moom munoo munoo munoo xëy xëy rek ñu ñu tabb la dara ñëpp dàqurandoo ndax yéen bi sax bañ ko joxee martabam wala jox ko màkkaamam wala yónni ko si yoon bi ñu ko yónni sax am na ñu doon critiquer ay mbokki boppam kon massa nag ci liñ nekk nga xam ne mbiru àdduna dong la buñ la jiitalee faaw ñu am ñu lay juutal mënul ñàkk waaye li wér te wóor mooy boo tëddee ba sàngu xam ni mën a mais Diourbel ban période nga fa dugg Diourbel ba ma fay dugg bëri sa premier combat Diourbel boobu euh, mu ngi nekk man ak euh, Cheikh Bob maa ngi am 17 ans Cheikh Bob bu Mbudaay Cheikh Bob bu Mbudaay waaw maa ngi am 17 ans boobu miinu ma sax làmb ndax ba ma ba ma duggee si làmb ji euh, dama maa ngi koy rappelé bu baax a baax dama ñëw fekk mu daan ñu bëri mu daan bokk sama benn collègue sama frère muy Baye Mbacke Niang yàlla dogal ndeysaan Baye Mbacke ba ma jëlee combat bi mi ma kii dafa mystique na nga ko bàyyi xel man làmb yi mën naa ne Baye Mbacke moom ci dugal ma jël combat bi ñu préparé ko dem làmb ja ba nekkee si làmb ji làmb ji di dérouler ñuy avancé di dem di dem ba benn moment bi nga xam ne war naa sëgg bëre ñu ne ma simbeekul man fi ma fekk am lu ma doon fa laa bëggoon simbeekoo nga xam ne maîtriser moon làmb ma ko man bëre bi rek moom si intéressé woon ñu ne ma kaay du foofu ngay simbeekoo sa cumbukaay fii la fii a simbeekoo yàlla xam na loolu ma simbeeku ma jàpp ko xam ma daan ko comme sama jikko rek yow kon loolu moo nekkoon sa premier combat moo nekkoon moo nekkoon sama premier combat si arène ndax njaareem ñoo ma njëkk takkal ngemb bëreloo ma ma daan. Jurbel nga débuté Jurbel Jurbel ñoo ma takkal ngemb bëreloo ma ma daan mooy sama premier combat muy dakaar ak fu mu mën a doon. nga jàppe ko ay fo daan koo xamante ne nii. champion la am na ngemb d'après rumeur yi nga xam ne mu ngi doon daw nga jóge ci kooku mu dal ñu ñu dal ci kan. ma jóge foofu ñu jox ma saako. saako sebaan waaw. ma daan ko. ma jóge waaw daan naa sëriñ dëkk yi dégg naa dégg naa xalifa général la. <laughs> non léegi sëriñ la. <laughs> ma juge foofu ñu jox ma mbay Diouf mbay Mbaye. Mbaye Diouf. Mbaye Diouf waaw. mbay Mbaye ma daan ko. Mhm. mbay Diouf laa daan. ma jóge foofu ñu jox ma euh, jo Jogey. waaw Jogey ma daan ko. Uh-huh. ma jóge foofu ñu jox ma giri bu Kër Seex. waaw ma daan ko. ma jóge foofu ñu jox ma nu jox ma El Hadj Diouf. El bu xojil. El Hadj bu xojil. mooy Mor. waaw Mor ma daan ko ma jóge foofu ñu jox ma hmm, si laab jël ci ma joxe Noiro. waaw Noiro daan ma. Noiro bu Mbàkke. waaw ma ñëw jël ko jël Noiro. Mhm. daal koy daanaat jël sama revanche daan ko si jël bu gaaw. waaw mais ba ba moom ba ma noiree daane dama dem jëli bonus. daan bonis dëkkam uh-huh. ma jugee si bonis ñëw jëlaat noiro daan ko ma jugee si noiro jël giri bu mbaake uh-huh. uh-huh. daan ko ma jugee fa jël Malick ñaa daan ko ma jugee fa jël booy ñaa daan ko jugee fa jël sans ñaambur daan ko foofu kon Diourbel benn defet nga fa mës a am muy sa combat ak Noiro benn defet boobu laa mës a am sama hmm. combat maak Noiro Noiro moom mës a daan kan mooy bonis ah <laughs> waaw. <laughs> bi ko tubaab di tuddee sax ki nekk sa ndeyjoor la nan. <laughs> sa sa sa bras droit. sama bras droit mais kii sama bras gauche la nekkee pour ngeen xàmmee kii may kanam. mbokki internet yi euh, combat bi nga xam ne nii mooy combat bi gën a neex ci carrière Zalmané nekkoon combat bi gën a compliqué borom yëre bu bleu bii ngeen di gis moom la moom la ko bëreeloon ca dëkkam. fekki ko dëkkam ñu bëre combat bu neex combat bu yàgg mu euh, bonus bu kanam nga dellu si waatal ñu ci combat bi ak euh, période bi combat bi di taxaw. waaw période bi combat bi taxaw nag dafa xawoon compliqué tuuti parce que xam nga pression dafa garaaw si làmb te man defet mën naa ne boobooy sama première défaite bi ma njëkk am miinu ma défaite xaw ko ak ba ma daanoo cool yi ni mu xawoon bëri fi ma gars yi doon xaar sax du woon défaite en fait far yàlla dogal nag yàlla dogal ma ma ma ñàkk combat bi léegi nag ba ma ko ñàkkee automatiquement ñu proposé ma bonus ñu bëri na ma déedéet ba pare ni ma euh, mbër la moo xamante ni musta am défaite mm-hmm. Euh, promoteur bi ne ma à domicile ngay bëri ak moom fay ma kase bu doyee di. daa mel lamb ngañ jaañ moo ko tëggoon. ngañ moo ko tëgg. ba pare fay ma kase boo xamante ne kase bu doyee di. mais man na ko jekk. Mhm. Euh, li naan c'est le sang qui parle direct day wax. Mhm. man lamb euh, toll na ma foo xamante ni comme comme des fois du ma yóbbu. mais pas-pas ak ngëm-ngëm ak njàmbaar daf may dugal ci lu bari. Mhm. est-ce que yàlla dogal ma jël ko si kase bu baaxul. ba pare jël ko ci euh, moment bu difficile fekk ko à domicile daan ko à la manière. mais lan moo taxoon ñu naan la euh, combat bi dafa dafa compliqué bul ko jël dañ la doon wax ay affaire mystique ci moom wala. xam nga bonus jël naa jël nga bonus rek moo jël nga mystique. risque la risque la woon. jël jël nga ko mooy jël nga mystique. <laughs> parce que imagine dëkku lëmb ñëpp di ko ñaanal ndoo ba pare mu indi ñu indi ko ba ci penc maamam fi dégg naa fi maamam musta daanoo fa lañ yóbbu làmb ji affaire ségrégation <laughs> yooyu mooy lan. <laughs> Sali yaa ngi toog jaabur de. xam indi ko foofu indi ko indi indi ko foofu. indi ko indi ko. mbër mën ngay wax di faj sa soxla de man bañu ma loolu. ok ok kon mën ngay def émission di faj soxla. kon kon amul stress. <laughs> dogal. bañ ma proposé combat bi rek man fi ñu ko indi rek dafa xawoon daw sama yaram parce que à domicile mais mënu ma koon bañ sax parce que dama jógee si défaite défaite dafa garaaw te yàlla na si yàlla du musal mbër hmm. da di ñaar bu ñuy léewtoo euh, kenn ku ci nekk ndam nga indaale mais faaw kenn ñàkk li naan ñëpp a bëgg a euh, xaw ma euh, litre te mënul ñàkk donc noonu la loolay loolay loolay loolay loolay loolay réalité làmb donc da ngay bëgg dara sa morom yow ngeen koy xëccoo te kenn ko ci mën a am kenn ñàkk kenn yóbbu mais chaque jour nag ki ñàkk boo xoolee guddeem day yàgg lool yàlla xam na loolu. mais combat ba risque yi ci yow la ëppee woon parce que da nga jóge ci ci ci Noiro ñu ne Noiro da laa atteindre mystiquement nga dalaat ci beneen mbër boo xamante ni mystiquement dafa taxawoon. yàlla xam na ni combat man ak Noiro. Mhm. Noiro lu ma teg rek maa ko yóbbee sama bopp parce que li naan naagu baaxul demoon naa ba foogoon ni sax man man pour man daal waruma sax di mag suñu man demoon naa ba tolloon foofu si làmb. surtout làmb njaareem mi nga xam ne waa ji ma njëkk wax defe ne ma làmb Dakar. da ngay dem fay sëriñ mu ñaanal la waaye làmb njaareem daa mel ni ku garab garabu mànga sax si këram du ko jënd day witti. waaw minimum mystique gu njaareem noonu la demee. gars yi fa nekk képp ku ci ñetti néeg boo weesu ba ko ñeenteel sëriñ la ma nga sa ma nga sa ruqam toog. te mbokk yi fa nekk. c'est-à-dire dañoo nekk seen keppaar man tam ma doy dil woon ko trop teguma làmb ji fenn jox ma ko wàccu waayam fi ma waroon toll tollu ma fa moo tax ba ma ñëwee noiro corrigé ma da ciy baax ñu wàññi la parce que yoon bi ma jëloon baaxul. foofu fan nga ngemboo man sa ngemb bi moo ma njëkk a jaaxal ngemb boo xam ne il paraît que da nga dem jënd rek ñëw takk. ngemb bi fan laa ngembatoo contre man ak Noiro. Noiro da nga dem jënd sa morceau. Noiro fii laa jógee du ma ko fàtte sax yoon bi ma awa ngi nii ah. Euh, ñëw naa ba fii ma dëppaat xool ci kaw mu am ay quelques saafara ma yokk ci ndox. Hmm. dajale kel bi yu manqué saafara yëpp laa yokk ndox. dem si marché bi fa jënd fa lii doo sama saak ne sama waa kër maa ngi seeti sama maam. ànduma kenn ma génn ñëw ba si euh, kii bi Euh, arrêt bi may jëlee euh, bus pour dem Njaareem mbuus bi ma yoroon euh, bitéelu saafara yi fa nekk daa pàcc daanu si tëli bi ma for ko utaat beneen mbuus dugal ci taq ba mu dëgër na Njaareem maa ngi noonu ba mu ñëwee yee ñoom jiir ne leen dem làmb ja ñu ne ma yow noo ñëwee mel leen nii ana ngemb li mel leen li ñu ne ma ngemb li jot la dem jëndaat beneen ngemb jox ma ma takk wallahi azim. aussi parce que bi nga summee ko ba dem ngemb ba pare. ñu ci bëri bokk na ci ndeysaan maa ngi koy euh, jaajëfal baax suñu papa xaw si jaw dafa ne Zalman dafa ñëw pour daanu parce que ngembam bii nii dafa mel ni respecté wut adversaire am. noo te looloo am sax nag ngem moo dëgg suñu borom wàccuwaay bi ci waroon dëgg-dëgg def ma ko ci mais nag comme làmb la te daan na ma xam nga su ma fa bëggee toog naan ngem bu ma day xaw a nduuru damay saltel wala yu ni mel ndax gars yi pour nga justifier di léegi dafa xaw a jafe c'est très compliqué parce que nit ñi na waxee ak na ñuy dégloo day xaw a loolu mais li wér te mooy daan na ma te ba ma daanee après daanaan na ay ndaanaan. daan ma ba pare dem daan aatu te jamono yu aatu doo ko doon yëngal. yow it nga bëre ak ndaanaan jamono jooju muy bonis. ma ñëw jóge fa nag dem jëli bonis. bëre ak bonis pour naa nag combat bonis moo gën a jafe combat noiro. waaw parce que li ngay daw si bonis li ngay daw si noiro bu dee fukk la ñaar fukk yee ngi si bonis. Hmm. mais nag loo waaj ak loo waajul la. léegi dama ko waajul lii ma waaj ko. mais bi ngay dem ci làmb ja am na conseil bu ñu la joxoon ci bonis. am na conseil bu ñu la joxoon. a <laughs> ah, conseil bi mooy conseil bi ñu jox ñëpp <laughs> conseil bi mooy conseil bi ñu la jox yow mii boo demoon di ko defal émission danaa la moytu laar bi. <laughs> bi mooy lan. laar bi daal benn bant bu taxaw la ñu laxas bopp bi. waaw sër bañ koy laxasee xaw ma morsu néew la. waaw xaw ma morsu gumba la. Mhm. xaw ma lu mu doon mais dañ ne bu la laalee. cat daam tuuti karaw cat daam lay dañ ne bu la laalee yaay raw xaal da ngay nooy nepp. yow daal xam loo am invitation nga nekk ci bis bi kaay tëdd nga tëdd dem ñibbi moo ba mu génnee laar bi keroog nee naa samay gaa bu dee si defet laa jógee bëgg ngeen ma delluwaat ci fexe ba laar bi laal ma bu dee ne bëggu leen ma daanu fexe leen ba laar bi bañ maa laal ah keroog combat ba tuuti mu tas gis naa ñu man gis naa sama benn xarit boo xamante ne du musul xuloo si àdduna mais keroog la mës a xeex dégg naa ginnaaw comme karatéka dégg <laughs> ne ko laal ki mu ko jox sama mbokki bopp la <laughs> li olof daan olof Ndiaye naan paaka bi lay sa waaye koy daas. Mhm. ak mën nekk c'est parce que ki jëloon laar bi ne daf ma koy laalale. Mhm. Yatanza man ak moom ñoo bokk Grand Yoff. Mhm. bonis ànd ak moom si jouru lamb ji parce que nag Yatanza nekkul sax euh, comme bu ko nit ñi jàppee comme affaire de naafeq yu ni mel mais moo Yatanza ñoo maa ngi koy au passage. ok moo Yatanza ñoo bokkoon écurie c'est très normal mu am combat. mu ànd ak moom sax parce que écurie bi moo leen boole moo leen lii bu convoqué bi convoqué rek. Euh, donc da ngay dem par sa parce que loolu ndigal la te écurie moom ku ci nekk da ngay wóoyee ndigal. c'est ça le problème. mais Bonis dégg naa mu ngi laaj revanche am ba léegi. léegi tey moo ko mu leer. Eh, Bonis nekkoo fi de Bonis nekkoo fi déet nekkoo fi. Sénégal euh, kii euh, sa kii mbokki àdduna wax leen ko émission bi maa moom dañ ma laaj damay wax li ma xam. Bonis fi mu ne nii. képp kuy bëreeg moom. képp kuy bëreeg Benis Benis laay supporté. mais man moom prête ma pour bëreeg Benis. ndax dafa bët bu rusul toj. la bët bu rusul toj. fi may te làmb jamono jii. Mhm. fi ma ko teg sori na lool te diis na lool te kii jommati naa. Mhm. jël ko fen sax di ko jëmale si moom yàlla xam na loolu. mën na bëre ba doon li mu doon. Mhm. wala bëre ba mel ni mu war a mel. te yàlla xam ne du am benn yàqute yàqute si sama dund wala si dundam. dëgg du dëgg. donc sama nawle la te ku baax la te mën naa ne léegi ñoo bokk grand sax parce que every day every time muy grand mhm. man tamit kasaale ka naka noonu bu làmb njaareem amee dañuy door daje malgré man géej naa njaareem mhm. mais sama nawle la boo xam ne ko ko respecté la parce que c'est le travail qui paye te dafa gëm métier mhm. donc chaque jour da ko gis si benn but mu ciy nekk kenn du kii su ma doom daal tuddee ko laa bëgg. mbër baab baab nga ko ba mu <laughs> ba mu wàcc. baab nga ko ba mu wàcc mais baax na. <laughs> en tout cas Boris daal nee na moom. pareegul waaw. <laughs> moom daal na ko jël ak lu mën a xew nee na na xew après après revanche bi bu revanche bi jàllee na rafet. ah waaw loolu mën na nekk mais mais bii moom weesu na. maag Boris moom saa yi na fi mu toll nii quoi. ban instant nga bëri ak saa ñaamur mooy bi nga paree ci bonus wala amaatu. non non saa moom saa ñaam bu may bëri moom fekk na ma après bonus. waaw naa fi ay euh, huit combats. waaw bëri waa naa fi huit combats xaw hmm. yi mu la limal yëpp. waaw yi mu la limal yëpp. Euh, après combat yooyu ko yi mu la limal nii njaareem la Jurbel la mais après loolu bëri naa fi huit combats yoo xamante ni ñu ngi ñu ngi fii bëri naa fi ay euh, Boy Diop. Hmm. bëri naa fi ak. sa diggante dama ko jàllale yow xam nga sama jikko. su ma la xees yow sama jikko man xam nga ko. waaw man dama bàyyi mu sedd. su ma limee noppi rek mooy jàll naa ko. <laughs> waaw naa fekk boo Diop. bëri naa fekk uh-huh. euh, euh, fiis de Fodé. bëri naa fekk euh, bidéew bi. Uh-huh. bëri naa fekk mm, doomu papa Diop bi. Lac Rose Garga Mbossé maa maa bëri premier combat sax Pape Diop xaw ma Pape Diop bu doomu doomu doomu Pape Boston bi. damay fàtte tur bi tuuti mu ngi Italie léegi bëri naa moom bëri naa ak euh, ak euh, kii euh, saa ñàmbur moom laa mujjee bëreel arène arène arène nationale grand combat bëri naa di ñaan yàlla na Zarko am ndam si kaw Ada Fass Nandi Fall daan Papa Boy Djiné na ci góorgóorlu bu baax a baax Zarko yàlla na daan Ada Fass Zarko yàlla na daan Ada Fass Zarko yàlla na daan Ada Fass si barki Seydouna Mohamed jaajëf mbër ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax Euh, ne la woon mooy mbër mi nga xam ne nee na Serigne moom moo ko teree nelaw ñu koy jaajëfal mbëru gox la nag parce que buñ ko tuddee tudd Grand bu ñu ko tuddee tudd Diourbel mu nekk koo xam ne nii ci wàllu mobilisation ci wàllu chorégraphie ci lépp euh, day jox bés àqam ba mu mat sëkk donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant di ko gërëm ci nangu gi ñu nangoo jàkkaarloog ñun tey cant ngërëm ñeel na leen yéen yi nga xam ne yéen bàyyi seen temps aussi doon ñu suivre ci émission bi ci wasaare làmb ñu ngi leen jox dig daje ba ëllëg incha ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf